jërë ngeen jëf euh, mbokk internet Thiès Info salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu amaat tout le plaisir euh, seen émission politique à Thiès euh, tey nag ñu am tout le plaisir donc di ci dalal Assane bay nekk responsable politique bu APR di jàppale son excellence le président Macky Sall fii ci diwaanu Thiès Assane salaamaaleykum. maaleykum salaam Amadou maa ngi lay nuyu di la nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi suivre Thiès Info à partout dans le monde. di nuyu responsable politique yi nga xam ni ñu Sénégal ak ñu nekk Thiès ñëpp daal ak kilifa diine kilifa aada. Mhm. Assane pëccëxoo gi ci euh, coalition benn Bokk Yaakaar pëccëxoo gi également ci alliance pour la république gis nañ euh, diggante euh, ki nga xam ne di Moustapha Cissé Lo ak Farba Ngom benn audio boo xam ne donc Farba Ngom. Euh, publier na ko si benn émission boo xam ne donc mu ngi ko doon defal te ki nga xam donc moo di Moustapha Cissé Lo daal di koy envoyé euh, audio boobee euh, jàngate nan nga jàngatee coow li nga xam ne donc am na si alliance de la république. tout tout d' abord di jaale ci au nom du président du conseil d' administration de la LONASE Pape Siré Dia. mu mm-hmm. occasion am ni mu ngi ciy jaale yóbbante jaale umma islamique yëpp. Mm-hmm. à travers kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo fi jógee. Mm-hmm. notamment Baye ak euh, Pape Malick Sy porte porte parole xalif général bi Tijaan mm-hmm. ak jigéen bi nga xam ni mu ngi bàyyi bàyyikoo ci njabootu Maulana Cheikh Al Ibrahim mm-hmm. ñoom ñëpp nga xam ne ñu ngi bokk semaine waa Kaolack leen di mm-hmm. ñaanal sunu borom te di leen jaale di jaale njaboot bi tey fasanteeg ñoom kóllëre te di ko feddandi lu euh, comme li ngay wax ci ci euh, mbirum coow yi nga xam am loolu bokk na li ñu gën a motiver pour que ñu ñëw waxtaan ak sénégalais yi mais interpeller le président de la république mi nga xam ni moom mooy. suñu secrétaire général mooy ndeyu mhm. parti. Mhm. parce que it euh, dama jàpp ni kilifa yooyu ñun nekkatuñu ay royuwaay ci ñun jeunesse bi. ah bon mhm. parce que président de la république. royuwaay si far ba Ngom wala ci Moustapha Cissé Lo wala. ñoom ñëpp parce que man xooluma ku tooñ wala ku tooñul parce que suñ la tooñee war ngaa mën a muñ. ba am kàddu yoo xam ni waroo ku ko dégg xeeb la wala ku ko dégg jàpp ni kii day jàppale président de la république dina la xeeb xeebale sa kilifa. Hmm. parce que Macky Sall lu ñu mën a wax ci àdduna kenn mësta génnee audio wala wax joo xam ni wax na ko mu safaanoo wala mu tegginu nit dégg ko am kersa. Hmm. donc moom modèle de discipline la président de la république di président Benno Bokk Yaakaar kon képp ku koy jàppale war nga am yar. war nga am teggin war nga mën a muñ lu bëree bëri. est que tukkeewul ci taxawaay bi mu waroon am ci parti bi également parce que ñooñu aussi ñoom ñoo ñoo formé ñoo formé APR sa sa suuf. ñi ñi formé APR mën nañ ni ñoom ñëpp ci la ñu bokk or yaa xam mbay mais man waxewuma ku formé ak ku formewul ndax parti politique moom. Mhm. ki ci nekk démb ak ki ci ñëw tey suñ ci adhéré rek ñoo ci bokk yam euh, kilifa nag day tëddee njaaxaanaay njaaxaanaay loolu président tëddee. ñun dañ koy rafetlu en tant que jeune ñoom li ñu waroon a def mooy président fi mu tollu tey jii ñuy wax plan Sénégal émergent mu ciy góor di ci góor góorgóorlu ba toll fii Covid 19 ñëw ñu war a wax waxu nan la ñuy xeexee mbas moom ba mu jóge fi ñu nekk ci biir xeex boobu xeex bi pareegul ñu ngi xalaat nan la ñuy fexee ba génn Sénégal génn ci guuta googu économiquement sanitairement kuy jàppale président de la république ci loolu nga war a concentré est-ce que tukkeewul nag di indi ay pëccoxoo ak réeroo ak ay xuloo yoo xam ne da nga ko mhm. génnee ci mbedd mi loolu it indi na jafe-jafe beneen bi ci des président na profito ginnaaw moom su leen woowee sanctionné leen ba pare sanction exemplaire na nag commencé waat ñu def ay réunion sanction bi sanction bi mooy mooy ci ban fan teggi seen ndombol tànk yi ñu leen dénkoon wala euh, euh, sanction bi ci ci ban ban fan lañ leen sanctionné mën na nekk sanction disciplinaire parce que am na am na kàddu yoo xam ne rafetlu rafetul Sénégal yi di ko dégg moom moo xam politiquement yan sanction lay jël. pour que loolu bañ a amati ci ay jege ñaaleem. parce que loolu rafetul te rafetul Sénégal yi di dégg kàddu yooyu ci ku jege président de la république. ñuy woo responsable yooyu ñu jël modèle ci président ci modèle de droiture ci modèle de yar ak teggin mais aussi ñu xool tey jii am na ñoo xam ne ay problème crypto personnel ay poste de responsabilité moo tax. ñuy jóg di attaqué di waxante lu ñaaw mais tey jii ku mel ni euh, le directeur le PCA de la LONASE tey jii station bu ko président mën a teg lu mu kawe kawe ak lu mu suufe suufe il reste toujours loyal au président de la fu ko président mën a teg tamit day servir jàppale président ak jom ak fulla ak fayda loolu nag ci la ñuy woo tous les responsables de Benno Bokk Yaakaar ñu suivre modèle boobu nga xam ni mooy le responsable. est-ce que est-ce que ce que est-ce am jàmm. Mm-hmm. est-ce que Assane tukkeewul ci euh, li nga xam ne ñoo fare ci kujje gi ñu ngi koy wax pour euh, euh, APR ne APR parti la boo xam ne amul organisation APR la parti boo xam ne également structuré wuñu ko. est-ce que loolu est-ce que responsabilité président Macky Sall du ci jógee. wuñ ko mais organiser nañ ko parce que am na responsable des jeunes am na responsable des cadres am na responsable des femmes am na au sommet le. Euh, senef bi nga xam ni ñoom ñooy daje de temps en temps li ñu war a rectifier mooy président indiwaat li nga xam ni mooy université républicain nga xam ni xale yi daan nañ ci daje ak mag yi ñuy waxtaan di échanger pendant trois jours. Mhm. loolu dina yokk sunu euh, militantisme dina yokk tamit sunu xam-xam ci wàllu vie politique parti bi ñu commencé waat animé waat le parti. vie politique bu parti bi loolu dina permettre responsable yi am réeroo suñu dajee dans une cadre bien approprié loolu yëpp mu ngi tukkee ci ñàkk organisation bi bu fekkee ne. Euh, organisation am na relance des activités. Mmh. au sein du parti muy réunion périodique yi ñu doon def parce que it lii fi ñëw dafa dafa dafa bette euh, nit ñi talatuñu ay lu jëm ci mbirum politique ak yeneen ak yeneen. Mhm. loolu yëpp conséquences yooyu peut moo mel nii mais lu conséquence am am am si tu es responsable. nga mat li nga doon lu waay mën a wax wax wax situation bi war ngaa mën a muñal sa moroom loo xam ni doo wax wax ju ñaaw wala ngay wuññi sutura wala ngay wax loo xam ne su génnee ku ko dégg jàpp sa nopp lan mu nga jàpp ne moo nekk problème majeur bi entre yaa xam Yakham Mbaye Moustapha Cissé far ba Ngom ñoom ñëpp ñu nekk ay ñooñu président Macky Sall est-ce que jàppoo ne xëy na guerre de positionnement moo am seen biir ay problème crypto personnel rek la mën a nekk mhm. du loo xam ni dañ koy xëccoo ngir njariñu président de la république te tey jii nit ñi li ñu war a def mooy serrer la ceinture. Mhm. def benn ceinture de feu autour di président de la République accompagner ko ba fii nga xam ni moom la bëgg a jege jëlee réew mi économiquement jëmee ko fa ñu bungee ko ci jàppale ko ci te fàtte suñu bopp. Mhm. ëllëg ëllëgu yàlla la ku fi yàlla di teg wala kuy ñëw ëllëg kooku kenn xamu ko mais calcul yi ñu commencé calculer bokk na ci conséquences yi président mu ngi def li mu man mhm. mais benn nit kese kese loo am xalaat xalaat loo am kàttan kàttan loo am am alal ñi la entouré ak ministre yi la wër suñ la jàppalewul tamit doo dem loolu moo tax mu wut ay ministre wut ay député wut leneen ak leneen mais seetlu nañu même au sein du gouvernement war na jël am ñoo xam ne dafa war a tàqalikoo ak ñoom définitivement. ah bon ñu dem da ngay défier confiance comme kon da ngay fekk ci Moustapha Cissé loolu mu wax. parce que mu Cissé Lo wax na ne xëy na le ministre de la santé dañ ko war a dàq Ousmane Diatta mi yor euh, commerce également dañ ko dàq kon boo waxee li dafay dëggal kàddu yi Moustapha Cissé Lo waxoon diw mi faussé na wala diw mi faussé na kon respecté woo confiance président Macky Sall respecté jàpp nañ ni gouvernement bii mu teg nii mhm. liñ ko waroon a bunge ci lu bëree bari moom président dina dem na ba xam ni sax ñii seen intérêt li lañu la ñu jiital que intérêt population. responsable de Macky Sall day dikkaat ci loolu. moo tax ñu koy ñaan mu jël ay responsabilités am ñi nga xam ni moom moo leen teg ci station yooyu moom moo am degré d'appréciation ginnaaw ñun xool ni kii kat li mu li ma ko teg matewu ko mu jël ko teg ko feneen parce que Sénégal dañoo nekk tey jii ci jamonoy urgence nekk ci jamono boo xam ni Covid bi ñëw na rey na lenn ci économie bi. Mhm. te Sénégalais yi ñu koy xaar foofu mu nekkaat benn ay ay défis yu bees yoo xam ni. fekk na fi défi yi fi jiite woon. muy le plan Sénégal émergent nga xam ni mu li lu ci ëpp koomu Sénégal ci lañ daan jukki di financer yenn yi. donc loolu yëpp ay coow la yoo xam ni war nañ ko mën a. Moustapha Cissé Lo sàkku na ngir euh, coalition Benno Bokk Yaakaar samp ko ci euh, mairie bu Ndakaaru ndax euh, loolee moom. lu war a am la ndax jàpp na ne xëy na liggéeyal na parti bi loo xam ne war nañ koo samp ci Dakar. waaw lu ñu mën a wax Cissé Lo bon bokk na ci njëkk a taxaw gëmloo président de la république ni moom war na mën a nekk président de la république. li Benno Siggil Sénégal taxawee mu nar leen a soutenir mu fi liggéey am na fi mérite mais affaire état nag mën nga jàppale sa nit mën nga jàppale sa candidat mu jël benn appareil politique ñu pousse ko ba mu accéder au pouvoir mais pouvoir boobu nag du APR moo ko moom. du Benno Bokk ba Yaakaar moo ko moom du réew mi moo ko moom euh, pouvoir boobu sénégalais yi dans l'ensemble des sénégalais. ñoom ñoo jël seen alal seen koom seen lépp yow jox la ko donc kon soo ñëwee nag ci séddale bi dangay séddale séddale njaaxaandaay ñu man dàquma président dem ba teg gouvernement boo xam ni da ciy jël ay borom xam-xam yoo xam ni ñu ngi société civile ñu ngi ci kujjee mhm. politique yi parce que ñoom ñëpp Sénégal lañ bëgg mu jëmee kanam peut-être kii dafa ni nañ ko jaare yoon wi kii nii nañ ko jaare yoon wi mhm. mais réeróo du réeroo boo xam ni mën nañoo bañ a ànd parce que bi tawet bi feeñee gis nañ que ni l'ensemble de la classe politique société civile ñoom ñëpp nekk nañu benn tënkalikoo mhm. pour lu taxoon ñu wuy ji président parce que il est le président de Benno Bokk Yaakaar dañ ko wuy ji parce que c'est le président de la République daf leen a lancé appel pour Sénégal donc su Covid bi passé yaakaar naa ni noonu mu tàllale woon loolu ñooñu loxo publiquement na leen tàllalaal loolu loxo ñu former benn gouvernement bu am solo. Mhm. ñu ànd liggéey pour que njariñu Sénégal dem. est-ce que ñu bañ a jiital nag. Mhm. njariñu parti politique yi. Mhm. wala militants yi. est-ce que ko eh- defee rek dañuy fausser débat bi. Assane est-ce que tiitaange amul ci jamono jii nga xam ne donc euh, parti benn euh, bu benn euh, coalition Benno Bokk Yaakaar pëcc xoo gi bari na ci est-ce que jàppoo ne xëy na tey ñu ci bari dañuy bëgg bàyyi président Macky Sall parce que dañuy jàpp ne ñetteelu mandat moom lu ñu mënul dégg la Yaakaar du du mais coow ci biir APR. comme coow li ci biir néegu président de la République waaye du ci biir kër gi mais ci biir néegam mais na woo ñooñu bokk ci néegam waxtaan ak ñoom delloo si leen ñu ànd liggéey loolu la loolu loolu mooy li am solo mais soo demee PS PS ak APR benn problème amu fa AFP benn problème amu fa donc ñi ñi wër président entourage am boobu nga xam ne jàpp nañ ni ñoom ay kilifa lañu ay tenoor lañu ñoom ñoo ko war a jàppale ci li nga xam ni moom ci la nekk séq ko ak nawle yi war koo jëfal Sénégal yi. Euh, Assane Mbaye responsable politique APR nekk fii ci diwaanu Thiès Assane euh, dañuy des tuuti rek ci euh, coowul suuf nag xam nga ne Thiès fan yuy génn gis nañu benn collectif bu fi juddu te ñu ràññeek le juge Omar Deme Euh, juge dem également mu nekk ci am beneen kuréel goo xam ne euh, ñi ñi nga xam ne donc ñooy les maires de réew mi génn nañ def une sortie par rapport ak euh, collectif boobu seen sortie boobee coowal suuf au niveau de Thiès. naka nga ko jàngatee. coowal suuf du du du fi bees yàgg na fi mais li am solo mooy man teg jii juge Dème dama koy ne man jàpp jàppoon naa ni niveau intellectuel am dépassé na. ñu koy dugal ci combat boo xam ni moom maîtriser ko à cent pour cent. ak position yi mu am yëpp juge dem juge la su fekkee juge la. Mm. Mm. war na xool bu baax a baax ci suy dugg ci combat xool ban combat lay dugg mais doo nekk en perte de vitesse nga gis ni nit ñi am nañu cinq personnes wala six personnes yoo xam ne c'est des habitués des faits ci coowu suuf te ñooñu ñi ci ëpp soo demee ci registre yi 2004 ba léegi ci ñi ñu may suuf ci Thiès seeni tur a ngi ci. ñu taxaw dugal na ci ay combat crypto personnel nga ciy dugg noonu aveuglement man yàppoon naa ni moom dépassé na foofu. Mhm. parce que li may wax nit ñi chaque jour commission moom mooy joxe suuf benn maire mënu koo joxe benn service des impôts et domaines kese mënu koo joxe Talla Sylla mënu koo joxe Jibi Si mënu koo joxe suuf ku koy joxe commission la service technique yi ñoo ciy nekk ak mairie ak ni ko war a séq ñu ni kat kii joxoon nañ ko terrain depuis 2000. jafu ci dara ñaari at yiñ ko joxoon délai passé na commission boobu bind na def ci journal yi yónnee ci rajo yi ni képp ku am terrain ci zone sàngam yu dépassé ñaari at defoo ci dara dinañ ko nangu pendant six mois six mois yi jeex ñu defaat beneen préavis de plus de six mois kenn kon ñoom li ñu waroon a def pour alerte pour nit ñi jël seen matuwaay ku am sa yëf nga waggar ko téewaat ko def nañ ko léegi nag commission boobu ñoo dajewaat defaat ay réattribution te ñiñ ko jox jox nañ ko ñoo xam ni jàpp naa ni xooluma ndax gisuma registre bi te nit lu muy wax dafay wax lu ko leer te it njortu rafet rek laa am ni jàpp naa ni jox nañ ko ñañ ko war a jox ndax gis naa ci ñu mm-hmm. néew doole ñoo xam ni mm-hmm. ñoom jàppoon nañu ni duñu am suuf ci commune de Thiès te am nañ ci te loolu xam naa ci ñaar lan lan lan nga jàpp ne kon moo wundu coow lii lépp li wund coow ñooñu di coow dañ daan def saabu su suñuy séddale suuf ñu jox leen ci seen wàll séddale bii nag. comme comme comme comme ñan ak ñan ñan ak ñan. man diw ak diw ak diw. ñoom hmm. ñi porté combat bi. ne ci kanam xam nañ seen bopp. ku ci am dem na nekk ci kanam te moom xam naa ne moom jotul suuf cees juge dem ya njortu naa ni jotul suuf Thiès su jëndul mais jàpp naa ni. ñu ëpp ci ñooñu song combat boobu kon moom combat bi muy mëne se c'est c'est un combat euh, citoyen. xam nga xam nga Ziz jam moom day dégg coow lu mu dégg rek dugg ci parce que moom la mu waroon a def mooy yam ci liggéeyam boobu bañ a démissionné. loolu loolu loolu ay mbokkam loolu lañ ko war non dafa démissionné bundu xatal bi bundu xatal bi kenn euh, daaxoo hmm. nga toog foofu xeex fa ngay fañ lay bundu xalatee te nga te nga am fa droit di liggéey foofu ngay toog xeex mais moom ay mbokkam ñoo ko war woon a wax mu démissionné da doon roy Thierno Sall ay Thierno Sall ñii ñëpp nga dégg ñu ne defe ne ay révolutionnaire la di coow dañoo utiliser système bi ba ba ba système bi euh, rejeté leen rek ñu ñëw ci ni dañuy xeexal askan wi kan mooy askan wi askan wi askan wi ki leen di xeexal mooy ki nga xam ni moom moo valable ñu fal ko muy président de la république wala député bi wala maire commune ñooñ jàpp naa ñooñ la askan bi ñoo valable pour xeexal askan bi ñoom la fi askan wi teg suñu doxalul yoon nag ñu xaar ba ay échéance électorale doxalin bi ci ci ñetti maire yi fi nekk ci que ce soit mu nekk mairie est euh, mairie ouest euh, euh, ñoom it également li ñu leen di tudd ci coowal suuf bari na également est-ce que aussi deful jotul ñu taxaw seetlu ci seen i doxalin également ils sont de la commission de réattribution des parcelles mhm. maire yooyu ci lañu bokk Talla la ci la bokk Djibi ci la bokk keneen ci la bokk cadastre euh, ci la bokk impôt ci la bokk mhm. urbanisme ci la bokk mais peut ñi ñoo occupé des positions stratégiques muy position politique yi mhm. wala Djibi Sy moom mooy signé acte buy génn moom mooy mujjee signé suñu nee diw ak diw ñoo ci des ayants moom mooy def signature am moo tax ñu leen ciy tudd lu bëri mhm. mais ñeneen ak ñeneen la suuf benn nit du ko joxe gouverneur région de Thiès mënul moom à lui seul jox Assane Mbaye benn parcelle jibi si munta xëy a xëy rek jox ma benn parcelle Talla Sylla mënu ko Aline Sow mënu ko commission ñooy daje ñu waxtaan ba juboo ni diw ak diw ñii yayoo nañ ko nañ leen ko jox jibi si def dernière signature am suñ nee nag politiquement les trois maires li ñu waroon a liggéey ci dëkk bi depuis bi ñu leen faleek léegi nag hormis les réattribution euh, réattribution des parcelles mën naa ni réussir ñu mission bi nga xam ni moo taxoon ñu jël mairie bi jox ko Idrissa Seck moom mu jël en retour tey ko jox ko ay maire yoo xam ni attente bi population bi amoon ci ñoom ci wàllu ci wàllu liggéey mm. dans dans les trois communes loolu attente yooyu ñu ci doon xaar gisaguñ ko. Mhm. waaw loolu mën nañ ñu jeexale rek suñu euh, suñu euh, émission ak euh, ki nga xam ne donc tuddu nga ko sànq muy Pape Siré Dia ku ne xam na la également ci ci wetam di ko jàppale mais jamono ji politiquement gisuñu ko ci ay ay manifestation à Thiès gisuñu ko également mu présence sur sur le terrain ana Pape Siré Dia fan la nekk. bon soo ne gisuñu jëmmam. mais ñu ngi gis waaw jëmmi boppam mhm. ci terrain bi ma ni d'accord mais nag yaa di Siré Dia un peu partout à Thiès benn ci man parce que dafa créer moom dafa jël ay jëm jëmmam créer ay jëmm yu mel ni moom mën a dem ci terrain bi mën a défendre président mën a dugg ci gox yi mën a dox ñooñu nekk ci Thiès un peu partout boo dem mhm. di fa fekk lu mu metti metti metti fukki Siré Dia yu góor ak juróomi siréja yu jigéen donc loolu siréja moom dama koy jël exemple tout le temps ma ni sooy xool suñu génnee mbirum politique rek entre fibre ceesuwaay dama ni ñett ñi gën a bëgg cees su ma doon leen lim ñett ñi gën a bëgg Thiès dinaa ni mbay Diouf ci la bokk xam nga lu tax dañ koo indi fii mu nekk directeur des chemins de fer mu dem ba ci yàgg Thiès neex ko bëgg cees mu tabax fi kër gu mel ni château dëkk fi def fi ay teraanga yu bëri créer ay Mbaye Diouf yoo xam ne tey jii ñu ngi liggéey di am salaire di di di fajal seen njaboot di faj ay soxla suñ nee ku bëgg cees mën naa lim Idrissa Seck parce que bi mu nekkee ci benn station donte génneewul ci gafagaam mais créé na condition yu fi sance de cees jëwee kon kooku bëgg na Thiès mais dama ni ku gën a bëgg cees Siré Dia yàlla sàkkagu ko parce que bi mu ñëwee il a créé plus de deux mille cinq cent personnes yoo xam ne tey jii à travers li ko président de la république dénk mu leen jàppale leen ci ñuy liggéey ci biir Thiès un peu partout di jàppale kon jàppale na plus de deux mille cinq cent familles. Euh, son avenir politique à Thiès est-ce que jàpp nga ne lu mën euh, antu lay nekk ci jamono joo xam ne xëy na euh, lu mën a antu la. Mhm. jamono ji politique laajatul laajatul. Mhm. ab ay folklore laajatu ko surtout avec la maladie donc. on a des nouvelles stratégies yoo xam ni chaque week-end que yàlla seere na ko ñun ñu ngi ci terrain bi di liggéey liggéey bu am solo boo xam ni àndut ak presse àndut ak wax pour que échéance yu ñu jëm ci ndigalu président de la république suñ ko jiitalee ñu mën a remporter ces élections parce que que am ngeen yaakaar si élection ñu dem euh, tamit parce que ñu bari ñu ngi wax ne euh, fi mu ne nii Papa Siré Dia moom daanaka xëy na euh, moom moom c'est c'est l'histoire ancienne non Siré Dia mënul nekk histoire ancienne koo xam ni. Mhm. créé nga plus de deux mille cinq cent personnes ci dëkk bi. ak li nga def ci jàkka yi. def ko mhm. ci jumaa yi def ko ci femmes yi. nga xam ni man tey ku ma gis may dox mën dara yàlla ak moom la nga gis beneen nit di dox yàlla ak moom la nga gis beneen nit di dox yàlla ak moom la. Mhm. donc kooku fii ba àdduna du tukki mënul nekk ci passé. tout il est toujours présent tant que ñi mu defar ñu ngi dund. Siré Dia est toujours présent. Mhm. donc échéance yi di ñëw. lan moo ci fas yéene nekk taxawaayam. taxawaay bi nga xam ni moom président de la république ak coalition Benno Bokk Yaakaar taxawaay biñ ci war a am mooy suñ ko jiitalee taxawaay bu bu bu raw bañ ci daan am lañ koy am parce que su dee entre Thiessois ak Thiessois rek vraiment Thiessois am nañ ci moom cofeel parce que Thiessois su gisee nga jàppale moroom Thiessois am dina dina la sant dina la gërëm. donc mhm. loolu moom amuñu ci njàqare kon daal élection yi bu ñu ñëwoon la moom eh, Papa Siré Dia moom profil comme ni ñu eh. defoon ci législative yi mm. def ko meilleur profil au niveau départemental ñu remporter ko parce que Thiès am nañ ci moom cofeel suñ ko defaatee bii di ñëw ci élection locale ñu samp ko incha allahu rabbi entre Thiès waa ak Thiès waa rek mu nekkul élection Idrissa Seck ak Macky Sall mm-hmm. on va remporter ces élections incha allahu rabbi jërëjëf ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu aussi suñu papa jooju Papa Siré Dia Euh, Assane euh, xam naa Assane moom il est fidèle à à à parce que nit ñi sax léegi Assane bu Sirédia lañ koy lañ koy woowee kàddu gu mujj gi waaw. waaw kàddu gu mujj gi. tout mm-hmm. d'abord di remercier di la remercier ak euh, techniciens yi nga àndal. Mm-hmm. mais di remercier le PDG de Thiès Info nga xam ni. Sey Latir Sey Latir nga xam ni moom ak Sirédia ay frère lañu ay magarak rakk lañu ku ñuy jàppale. ci liggéey bi la ku ñuy ku ñuy oyofal saa bu ñu soxlaa Thiès Info jàppandal ñu ko donc moom aussi ñu ngi koy sant di ko gërëm et tout l'équipe de Thiès Info di ñaan yàlla fépp fu ñu dégg organe de presse ci gën a mag ci àdduna bi ñu dégg fa Thiès Info. c'est c'est le meilleur à Thiès Thiès Info. c'est le meilleur <laughs> au Sénégal. Ah, parce que hmm. na Thiès Info nga xëy suba ba ngoon Sénégalais fu mu Thiès waa fu mu mën a nekk ci diaspora bi. ak kilifa yi dëkk Thiès ak même le président de la république day suivre Thiès info donc moo tax Thiès info daal ci biir cees la bokk ci Thiès la bokk. te loolu c'est le meilleur. avec les les les meilleurs techniciens. waree na ko ci kaay Thiès. <laughs> Euh, voilà euh, privilège bi mu defal Thiès info. ci mm. seen. Euh, en mois de décembre. effectivement donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf mbokk internet Thiès Info Assane Mbaye la woon ñu am tout le plaisir également saa bu ñu ko soxlaa. moom itam mu bàyyi ay yiteem ñëw fekk suñu ñu politique à Thiès Ahmadou Bambali moo nekkoon ci kaddu gi euh, feggoo woon ak Adama Ndiaye ak euh, Assane également njaari njaayeen yi nga xam ne ñoom ñoo euh, yore li nga xam ne moo jëm ci wàllu technique beeg yu ñu demee jaajëfal ko également suñu PDG Sey Latir jox leen rendez-vous beneen yoon seen émission politique à Thiès jërë ngeen jëf